yobati point com e is yobati asalaamaaleykum mbokk yi ñu suivre saa su nekk ci Lutte TV point com ñoo leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal tey lundi 15 juin 2020 ñu indiwaatal leen seen xibaaru revue de presse ma ci ànd ak Boucar Ndour ziar naa la Amina Ndiaye maa ngi fay di la nuyu di la ziar di nuyu mbokk Sénégal yëpp rawatina mbokk internet Lutte TV ni ñu ko waxee rek tey la lundi juin ñu ñëwaat ak yéen si seen yeneen xibaaru revue de presse noonu la demee dañ koy daal di ubbee rek yéenekaay yu Les Échos mu daal di xëy di fësal la ci xëtam gu njëkk Aliou Sarr ci yàgg gi nga xamante ni yàgg na ko ci biir CNG ak groupe bi nga xamante ni daal ñoom jàpp na ni dañuy kaasal seen bopp rek waaw mu mel ne nag Aliou Sarr moom moom la journaux yëpp xëy fësal tey seen xëtu mu njëkk ginnaaw bi nga xamante ni tey Euh, dañ ko invité woon samedi passé si groupe whatsapp boobu nga xamante ni tey mooy moo nekk ANPS nga xamante ni tey li fa ëpp mooy ay journalistes sportifs wala ay reporters ñoo fa nekk tey ñoo ko invité woon dalaloon ko samedi passé si seen groupe whatsapp mu mel ne nag Alioune Sarr euh, yaatal na si si si si si groupe boobu wala yaatal na si invitation boobu nga xamante ni tey yaakaar na ay journalistes ñoo ko seqoon et professionnels mu mel ne nag Alioune Sarr àdduna ci ay questions yu bëree bëri bëri bi su njëkk nag wax na si li nga xamante ni tey maanaam moo ñiit taxaw bëgg rek mu jóge fi moom nag jàpp na ne xaaj bi yëpp ku si nekk maanaam sa intre wu bopp wala sa sa sa sa intérêt personnel moo tax rek ngay ngay nga koy jéebaane wala moo tax nga bëgg mu jóge si njiitalu CNG bi. wax ji yàgg na lool ci ginnaaw Alioune Sarr nee nañu yàgg na fi depuis 1994 ba suñu joonu yàlla tey jii du démb di békki dem ay ati at la te ministre des sports bu bari jaar na fi kenn ci ñoom jëlewu ko ci tetu CNG bi mu nekk loo xamante ni nag mbër wax na ci promoteur wax na ci amateur wax na ci wax na ci loolu moo waraloon mu dugg ci biir groupe boobu di yëkkati ay kàddoom di indiwaat rek ay leeral. waaw di indiwaat rek ay leeral moom moom jàpp na ne moom fi mu nekk moom jàpp na ne yàlla moo ko fi teg rek bu ko fi waree tegi dina ko fi tegi moom Alioune jàpp na ne tamit li nga xamante ni tey ne li ñu di wax naan yàgg naa xëy na liggéey la boo xamante ni tey mu ngi ko sumb te jàpp na ne du ko jeexal parce que euh, nu ñu ko waxee rek continuité la ni gars yi di waxee nag ne maanaam maanaam moom yàgg na fekk yàggu fi daal jàpp na ne liggéey bi daal moom daal mu ngi ci li mu war jàpp na ne bëri na ay problème bëri na ay problème waaye nag jàpp na ne làmb ji maanaam problème yi nit ñi foog moom la làmb ji am jàpp na làmb ji moom amewul noonu problème Alioune Sarr daal yaatal na lu yaatoo yaatoo yaatu si biir journal Les Échos Amina. kon ci gàttal daal ñun ñee jàpp ni làmb ji am na problème waaye moom bu tëddee xelam day dal ci làmb ji ndax jàpp na ni làmb ji na jëm comme ni nga ko gisee mu yëkkati ay kàddoom di wax ci 45 ans yi nga xamante moom la fixé âge de retraite ci biir làmb ji waaw moom moom jàpp na ne 45 ans yi sax dafa bëri bu ko soñoon xam naa ne dinañ ko gën a wàññi ba 40 sax parce que jàpp na ne sport nekk ci sa performance sax nit ñi maanaam maanaam nit ñi ñoo la ñoo la dootul parce que daal day fekk nga commencé màgget te day tamit day am li ñu naan cent neuf mooy ay jeunes yoo xamante ni tey dañuy ñëw maanaam di di prouver wala nekk ay ay ay nu ñu koy waxee ay révélation ba tax na jàpp na ne daal 45 ans moom lu ëpp la si ni ko ni waxee si biir journal euh, bi nga xamante ni moo di record si xalima suñu grand suñu doyen Abou Ndour comme ni mu ko waxee rek 45 ans la ko faa fixé waaye jàpp na ni sax 45 ans âge bu ëpp la pour ko bër di continuer di ko bëre fii nii ci Sénégal ndax jàpp na ni pour nga bëree say yax day dëgg tey jii ngay bëri nekk ci biir arène bi ñu daal di lay dóor nga amee jafe-jafe àdduna yoo xamante ni danga naan làmb laa ko jëlee alors que à l'âge de 45 ans waroon ngaa mën a bàyyi dem defi leneen loolu la Alioune Sarr di soutenir jusqu'à présent waaye mi naaw bi nga xamante ni tey toogoon na at gisuñu ko moom nga Mbengue si làmb ji waaye nag dafa mel ni retour moom Alioune Sarr maanaam jàpp na ne euh, intérêt wu làmb lay doon intérêt wu ñëpp lay doon. intérêt wu làmb lay doon comme ni ñu ko gisee rek promoteur yu ci baree bari dañoo daw ndax jafe-jafe yi nga xamante ne am na ko poste di sa tul sponsor yi daw na waaye ki nga xamante ne moom moo di Pape Camara nekk ancien footballeur ci jaraaf yëkkati na ay kàddoom di wax ci ñetti affiche yi nga xamante moom la ñëpp di xaar. moom la ñëpp di xaar wala moom la journal ñetti affiche yu déwén yi nga xamante maanaam ñoo nar a gën a neexal saison bi bi mu si njëkkee mooy Balla Gaye 2 ak Boy Niang 2 moom Pape Camara jàpp na ne combat boobu combat bu doon beneen choc bi mu tànn tamit mooy Malick Niang Reug Reug joueur la nag waaye dafa mel ni joueur bu xam lamb la wala joueur buy dund lamb la moom Pape moom Pape Camara Yékini Junior Sa Thiès beneen affiche tamit boo xamante ni Amina Ndiaye bu neex a neex a affiche bu neex a neex a neex mi ngi noonu rawatina Boy Niang 2 Balla Gaye 2 ni ko nit ñi di xaarandee ëpp na waaye bu ñu jàllee ba tey ci biir journalu suñu làmb fësalaat na Alioune Sarr Alioune Sarr tey dafa mel ni moom moo nekk à une des journaux sportifs ba tax na nag mu yëkkatiwaat ay kàddoom fii rek di expliqué waat digganteem ak arbitre li ci xew rawatina sanction yi nga xamante tegoon na ko seen kaw waaw rawatina sanction yi nga xamante ni tegoon na ci kaw lim si njëkkee maanaam mooy longévité maanaam yàggaay bi na ne loolu moom maanaam day sonal nit jàpp na daal la la ci euh, au pour UG noonu la ko journal bi xëy tiitre rek si biir sunu lamb Alioune Sarr wax dana amee si li nga xamante ni tey maanaam mooy arbitre yi jàpp na ne moom du moom moo sanctionné arbitre yi loolu Alioune wax na ko. donc raxasu na ci ba set wecc ñu doon wax naan moom Alioune moom moo sanctionné arbitre yi ba ci ba ku ci mel ni sax beneen arbitre bi ñuy woowee Sitor Ndour mu daal koy rajjee. waaw waaye ba tey nag dafa mel ni journalu suñu làmb bi yemul foofu Alioune Sarr tamit ci kàddu yi nga xamante ne yëkkati na ko di ko wax nee na arbitre yi daan nañu laal lu toll ci 500 jàpp 1 million de francs fa waaw daan daan nañ daan nañ laal lu jot 500 ba 1 million de francs CFA loolu Alioune du biir xam ne rek waaye loolu tamit faaw leeral am si tamit nekkul ne chaque a mag a a laal te du nekk ne benn arbitre koy moom parce que lu mu dee si terrain leen kase bu toll noonu tey yaakaar naa ne daal li leer ba mooy ko ne yi moom gain de cause wala li xeex xëy na yàlla mën na def ñu am gain de daal si bu waxtaan amee waxtaan boobu noonu nag moom Alioune jàpp na ne Euh, ñàkkul benn yoon si si si ay waxam Amina Ndiaye. ñàkkul benn yoon ci biir waxam waaye yëkkati na comparé na li nga xamante ni moom moo di MMA bi ak làmb ji lutte avec frappe bi daal jàpp na ne MMA moom moo ko gën a dangereux mille fois. waaw jàpp na ne MMA moom moo gën a métti li nga xamante ni day moo di moo di moo avec frappe bi moom moom Alioune Sarr waaye tamit foofu tamit yaakaar na ne maanaam c'est plus réglementé foofu tamit jàpp nañ nañ nañ xam ne c'est plus professionnel parce que foofu moom Amina Ndiaye high waxee tey parce que compétition la yu métti nag mais c'est garanti muy muy sportif bi koy def yeneen ak yeneen ak yeneen c'est réglementé te bokkul ak làmb bi nga xamante ni tey moom nañ ko wax te dëgg te dee Amina Ndiaye maanaam anarchie moo ci ëpp làmb anarchie bi moo ci ëpp foofu foofu loolu tamit yaakaar naa ne lu war a mat a xel la. comparaison baa ngi noonu boo ko waxee Boucar Ndour dinañ koy gëm ndax yow nitu làmb nga ku min làmb nga waaye journalu suñu làmb fësalaat na Balla Gaye de doomu Double Less bi ginnaaw ba mu duggee ci biir làmb ji depuis 2005 ba 2020 nekk 15 ans de carrière yoo xamante ni seetlu nañ ci moom 3 performances yoo xamante mu ngi ci Balla Gaye ba ci njëkk lan la Boucar Ndour. ba ci njëkk mu ngi nekk 7 victoires d'affilée da ko teglante Amina Ndiaye mu nekk record boo xamante ni tey journal bi da say def jàng ci xalima Ibakan mu mel ni nag Balla Gaye moom boobu moo njëkkee si performance yi mu def si si làmb ji Amina Ndiaye ñett ñaareelu bi moo nekk 6 victoire 6 victoire d'affilée en 2005 mu mel ni moom maanaam bokk na si at bi Balla gën a bëre parce que at boobu noonu yaakaar naa ne si la si la si la bëri champion yu bëri combat yi ma daanaka daawul yàggal. ay un mois deux ñu tëgalaat la combat un mois deux ñu tëgal la combat loolu bokk na si li gën a propulsé Balla mu yëg si kaw teel a bërik ay magam teel a bërik ay grand frère parce que dafa def at boo xamante Amina Ndiaye ni ko journal bi defee rek six combat la si bëre six six la ci bëre daal ci am lu toll ci six victoire maanaam déggul mu benn yoon ci combat yi nga xamante amal na ko ci atum waaye waaye troisième performance bi waaw si victoire d'affilée la diggante 2009 ba 2014 foofu tamit maanaam defaat na fa beneen performance rek ñetti ñetti combat yoo xamante maanaam da ko teglante yàlla di ko ci may moom Balla Gaye do nekk tamit un champion incontestable nañ ko mën a waxee rek parce que si jaar-jaaram la ci parcours am la am na ay victoire am na ay défaite waaye kuy lim ndaanaan ba jot Balla Gaye tey maanaam di taxaw freiné nuñ koy nuñ waaye comme ni nga ko gisee rek journal suñu làmb tamit fësalaan nag ki nga xamante ni moom moo di Boy Niang 2 jóge na ci defet tegaat ci saison blanche jamono ji nag day wër ku ko jëlee ci jafe-jafe yooyu waaw ku ko génne ci camp gi rek loolu la bëgg maanaam làmb moom moo tëree noonu Amina Ndiaye boo boo amee benn defet def saison blanche rek pour nga jaare fa sa làmb yàqu day yomb loolu loolu ba tax na moom Boy Niang numéro 2 moom maanaam fi muy fi kon bëgg na adversaire kon yaakaar ne na ko promoteur yeeg mbër yi bàyyi xel Amina Ndiaye kon na ko promoteur mbër yi daal di bàyyi xel bu baax a baax ñi nga xamante ñoom ñoo war a bëreeg moom rek nañ jàpp ni a baax takku ba mel ni naanaa dafa mel ni leen jox dig daje te naan leen jàpp loxo di la jaajëfal yow bokkoon ndur mi mu ci àndaloon tey te naan la jaajëf waaw di la jaajëfal rek Amina Ndiaye di bëgg waat ñëpp rek di kontaanaat ci Sénégal yëpp di ñaan ñaar feebar bi yàlla jëlee ko fii ci jàmm ak salaam